ñi sant yàlla alhamdulilah. di méttit lu xew tey Sénégal. Mhm, ñu ngi lay fay baax di ñaanal ñi nga xam ne seen di ñaanal ñi nga xam ne seen bakkan des na si di di leen ñaanal yàlla yàlla di leen xaare leen aljana. amiin amiin. mais Sénégal la dafa am loo xam ne moom ñun balaa ñuy mën a taxaw rek am ci yu mel nii quoi parce que masla dafa bëri trop trop Sénégal. Mhm. dafa bëri trop Sénégal. Mhm. man li ma gën a yéem mooy saa su ma ñëwee Sénégal lu ma duggee bus. li ma mënut comprendre mooy lan mooy kii nan la tudd ni ñu koy waxati na seen Versailles mais mais mais loolu est-ce que mënuñu ko mënuñu ko éliminer si si si transport public c'est pas sérieux ça Versailles amul benn njëriñ si kii moo tax xool accident bi dañu la mel ñu si gaañu yëpp quatre vingt pour cent yëpp si Versailles lañ toogoon. d'accord mais lan mooy ndey ay ay Versailles. d'accord léegi Sénégal balaa ñuy mën a rek mu am jéey yu mel ni ñu doog a taxaw ñu ne ñu jël ay mesures. maa ngi fàttali ko tam batu joolaa bi tam lu mel nii moo fi amoon ne seen àll bi dafa bëri Sénégal. Mhm. monde bu avancé dañuy avancé dañuy jéem ñun ñu avancé comme monde bi ñu ngi avancé. Mhm. fii tubaab sañuloo di daw gis oto bu jël mu yëpp ay def ko si kaw oto sañuloo. pourquoi mhm. pas mënuñuy def comme tubaab bi ay nit ñi ñun dañuy réfléchir. dañuy réfléchir yàlla daf ñu jox pour ñuy réfléchir. mais balaa ñuy mën a mën a tuuti nag ñu jëlee am après ñu ay édition spéciale du n'importe quoi mais ni ñu jéem a góorgóorlu ñu ñu ñu jéem a avancé réew yi si biir mais balaa ñuy mën a am yu yu yu mais lii dafa métti sëñ bi dafa maa ngi toog sànqal sama benn xarit waaw mu gis image yi mu ne au moment bu koy laaj si espagnol bu benn mais lan mooy xam-xam dëgg moom bu koy expliquer mu ne non est ce que loolu loolu bi foofu bu muy demee Versailles diggante ñi mu ne non est ce que loolu ne seen bi nañu dimbali ngir yàlla waaye nañu dimbali ngir yàlla a régulariser transport bi parce que yu mel ni doy na waar parce que képp ku Sénégalais nga nekk bitim réew nga toog gis sa xol dafay jeex xool dafay jeex mais tubaab yi ay ay nit la mu ñun fii sañuloo daw laa wax sa lamp lamp lamp laa wax bu mu tuuti ngay daw ak benn lamp boo tasee policier daf lay arrêté ba pare ñu bindal la amende nga dem mhm. sañuloo di daw lamp rek laa wax bu gën a tuuti ngay daw benn sa lamp tàkk bu lamp da ngay dawee benn lamp dañ lay arrêté ñu amende nañu dimbali ngir yàlla waaye nañu dimbali ngir yàlla waa kay man lii daal moo si doon sama contribution mostaa bi daal bëri na Sénégal bëri na trop Sénégal merci Sénégal merci ok merci vraiment moom daanaka dut na baaraamam fu fu metti lool ndax euh, wax na euh, conditions yi nga xamante ne noonu la ñuy defee euh, transport en commun fii ci Sénégal wax na wàllum Versailles man sax daanaka foofu moo nekkoon sama interrogation ndax bu ñu fàttalee ne ñaari bus ñoo def euh, collision ci ñaari bus yooyu suñu euh, xayma ñi nga xamante ñoo nekkoon ci ci bus bi ëpp nañ cent trente personnes te en normalement normalement en chiffre chiffre normal bus bu ci nekk soixante personnes nga war a mën a jël donc lan moo war a lan moo war a indi euh, plus de cent trente personnes di voyager à bord de ces deux donc nekk na loo xamante ne itam on doit se poser les questions porte yi nga xamante ne itam dañ koy daal di def ci bus yi ndax du gën a diisal xamante ne moo di bus bi ba tax tey euh, poids bi nga xamante ne moom la warul àttan dootu ko àttanati parce que passager yi daanaka ku ci nekk di nga yor valise te valise bu ci nekk ñenn ñi euh, comme li xew tey jëye ji ñu ci bari ay commercant la ñu woon jóge woon Ndakaaru fas euh, jugoon Ndakaaru doon ñibbi seen seen dëkk Vélingara ku ci nekk rek yoroon nga ay marchandises marchandises yooyu itam dañuy daal di euh, peser donc euh, loolu itam gën a yokk li nga xamante ne moo di diisaayu ba euh, bi suy daw trajectoire bi nga xamante ne moo moom la war a am day daal di bi nga xamante ne moo nekk ci bus yi ndax pneu yi daal dinañ koy àttan loolu itam ay jàngat la yoo xamante ne war nañ cee mën a bàyyi ndax du fii ci Sénégal li nga xamante ne moo di transport dafa daal di dafa daal di amee sooke par exemple ñi nga xamante ñoom ñooy transporteurs yi daanaka euh, gis nañ mesures yi nga xamante jëloon nañ ko fi doo dañoo weñ sax daanaka comme ni ko ñenn ñi waxee dañoo weñ loxo nguur gi ba tax na yenn mesures yi nga xamante jëloon nañ ko dañ ko daal di dañ ko daal di eh, teggi ndax loolu euh, jotul itam ñu dikkaat ci Ah, jotul itam ñu dikkaat yi ñu xoolaat woto yi nga xamante ñoo fi daw pono yi yi nga xamante ñoom la ñuy importé di ko jëlee bitim réew di ko fi indi te nga xamante ne ñu bari ñoo ngi wax naan état yi du état yi nga xam ñoo gën ba ñu jotul ñu jàngatee ci bon képp koo xamante ne itam amee nga xalaat ci li rek mun nga woote ci numéro yi nga xamante ne ñoo affiché ci écran bi daal di ci indi a ah, sa xalaat salaamaaleykum allo maaleykum salaam alo oui sëñ bi na ngeen def waaw ça va yàlla Jérôme ça va ça maa ngi sant yàlla bu baax naka waa 2A TV mbaa yéen a ngi si jàmm. bon ñoo ngi ci jàmm sant yàlla bu baax mais am. xol tiis ak naqar mais di métti di di méttitlu nag li xew lu xew Sénégal. Mhm. di ko méttitlu lu bëre parce que wax dëgg yàlla affaire yi ñuy commencé ëpp nag. Mhm. parce que bu ñu waxantee dëgg accident yi fréquence bu ñu koy dëggee Sénégal fréquence boobu métti na trop. trop na trop nag man. damay leb tour bi maa ngi lay wooyee Québec maa ngi lay wooyee Canada. d'accord. man cami camionneur laa au fait. Ah, d'accord kon yow. am nga loo xamante ne war nga ko en matière de transport. waaw damay daw Canada États-Unis d'accord. chaque semaine dinaa def euh, à peu près quatre mille quatre mille cinq cent kilomètres. Mm-hmm. mais vraiment suñu waxantee dëgg rek su ma nekkoon Sénégal du ma dawal camion. du ma def transport bu ma ne woon Sénégal parce que secteur u transport bi su ñu waxantee dëgg rek muy transport passager muy transport u marchandise mhm. secteur bi dafa désorganisé wu trop mhm. dafa am laisser aller damay jàpp nag ni ñett affaire moo am dafa am ñett ñett affaire yi nga xam ne gars yi il faut ñu taxaw ci xam nga première affaire bi daal la mhm. première affaire bi tali la parce que gis nga fi accident bi côté bi accident bi amee noonu wax dëgg yàlla mënuma comprendre Sénégal ba deux mille vingt deux muy am ay route nationale yi traversé si biir ay dëkk route nationale yi day traversé ci biir dëkk du am benn du am benn signalisation du am benn contrôle mhm. pour xool vitesse fa nit ñi di jaare mhm. franchement loolu tamit oto yi di daje si route yu étroite yooyu man saa yu ma demee Sénégal su may su may tukki damay tiit damay tiit parce que tali yi dañu étroite Mm-hmm. donc il va falloir que gouvernement bi i xam ni Sénégal yemul rek si Dakar effort yu ñuy def pour tali yi niveau Dakar il ñu def effort yooyu pour intérieur dëkk bi yëpp mm-hmm. donc premier problème bi mooy tali yi signalisation ñi war a respecter lu signalisation mm-hmm. troisième problème bi aussi il va falloir que mu am ñu ko contrôler ñun fii fii par exemple man man miy dawal camion di def transfrontalier Canada États-Unis am naa affaire yi nga xam ne munuma ñemewuma am fit munuma am fit boobu munuma ñemewuma dépasser sama voix il faut que ma vérifier ko toujours parce que su ma ko dépasser man maay subir conséquence bi d'abord mhm. avant transporteur bi di ko subir mhm. ba pare am na corps yu fi nekk spécialement pour contrôler ko munuma fi jógee traverser frontière daw te du ma jàll ci benn station bi nga xam ne dinañ ma contrôler munul nekk mhm. donc je suis tenu d'être assez responsable deuxième affaire bi bus su Sénégal yi mais ñiy tukki ñëpp xam nañ ni amul fenn fooy dem nga gis bus bu am galerie ci kaw dañuy yëpp ay bagages ba mu dépasser bus bi mais loolu dafay am. dafay am conséquence ci déplacement véhicule bi. poids bi pois poids bi nga xamante ne moom la bus bi war am ngir mën a daw correctement dañ koy dépassé. waaw mais xam nga xam nga dafa am ay affaires yi nga xam ne man par exemple dama dem defi benn bi ma yegsee fii dama dem defi benn diplôme diplôme professionnel bu transport par camion. Mhm. donc di nga jàng en théorie lan mooy camion di nga jàng en théorie lan mooy ay énergie cinétique lan mooy ay déplacement de force donc da ngay xam exactement li ngay dawal lu mu doon donc day tax nga gën am responsabilité nga gën a sensible à loolu donc gouvernement bi dëgg dëgg dëgg bu ñu hmm. bëggee régler problème mu transport bi Sénégal il va hmm. falloir que ñu toppatoo yoon yi toppatoo ah. signalisation yi créer ay corps de contrôle ba pare di contrôler aussi en dehors de contrôler véhicule bi contrôler dawalkatu oto bi man fii damay toog ba ci yàgg rek dañ may tirer au sort dañ may tirer au ma dem defi ay test mu doon ay test su drogue wala ay test su alcool. Mm-hmm. parce que xam na xam naa ne en tant que professionnel waruñu ko fekk sama biir dara te je me soumets à cette euh, législation parce que loolu moo normal c'est d'abord pour ma sécurité avant d'être la sécurité des autres usagers Mm-hmm. donc franchement côté yooyu maa ngi masawu Sénégalais yëpp parce que dafa metti chaque mois chaque deux mois chaque trois mois nga dégg tant de mort mais dafa doy ko mm-hmm. et que wax dëgg yàlla état bi man je trouve que état bi ak euh, ñëpp ñu nekk ci secteur bi ils on intérêt à ce que ñu jublu si vrai problème yi pour mën a trouver solution. Mm-hmm. vraiment sama sama xol dafa dafa metti parce que genre affaire yu mel nii nii c'est absurde. vraiment mën nañ ci am solution maa ngi lay maa ngi lay remercier vraiment Jérôme. merci merci yëpp maa ngi bàyyi ñu ne ñu intervenir merci beaucoup. ñoo faat. mais metti na voilà di la di ko gërëm. mbokk moom doon woote depuis. depuis euh, le Canada moom nekk na chauffeur di dawal li nga xamante ne moo di camion ba itam wax na li nga xamante ne moom la jotee gis ci ni ñu defee transport en commun fii ci Sénégal waaye man li may laaj mooy euh, bus yi nga xamante ne ñooy daw fii ci Sénégal. ah ndax pono yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoom lañ ceey monté ndax daañu def ñoom ñuy dawal daañu def contrôle laata rek ñuy yéeg ci li nga xamante ne moo di moo di woto bi ndax lépp li nga xamante ne itam euh, dina sàmmante ak euh, kaaraangeew ñi nga xamante ne ñooy yéeg ci woto yi ndax ñoom dañuy jël seen mesure laata rek ñu rek daal di daal di àddu yoon bi ngir rek euh, def seen voyage loolu itam. Euh, war nañ cee war nañ cee wax ndax itam ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, chargé ci contrôle des véhicules maanaam les force de défense et de sécurité ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci ci yoon wi ndax ñoom itam dinañ jël le soin di rek euh, vérifier ñi nga xamante ne ñoom ñooy dawal yooyu lay woto ndax këyit yi war ngir rek woyaase ñoom ñi lay yëpp daal di nañ koy daal di nañ koy am ndax woto yi nga xamante ñoom itam ñoo ngi daw ci télé bi ndax. Euh, woto yooyu ils sont en règle laaj la woo xamante ne samp naa leen ko yi nga xamante ne yéen seetaan itam su fekkee régime mun na ngeen ñoo woowal ñi nga xamante ne ñoom ñooy union de de transporteurs routiers du Sénégal ñoom itam ñu daal di euh, daal di xalaat seen ñoom ñu joxe itam seen seen xalaat ci li nga xamante ne moo fi moo fi amandi waaye laataloo rek dañuy wéy di jël appel yi képp koo xamante ne bëgg nga daal di indi sa euh, contribution ci li nga xamante ne moo fi moo fi amee mën nga rek woote ci numéro yooyu salaamaaleykum asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw bi na ngeen def. ñu ngi sant yàlla baax ñu ngi di ziar wér di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mhm. ci tiis nga xam ne dal na tey ci Sénégal muy mhm. accident boobu am mhm. muy lu lool ñu koy bokk ak waa Sénégal yëpp di ko jaal mboolem kuy jullit rek ak fu mooy mën a ne rek ñu ngi koy jaal mhm. di ko métti lu trop di ko métti lu bu baax a baax di wax ne métti na ba fa métti yam mhm. xam naa ne nag liñ ci wax moom dafa dafa dafa nekk ne lu xew rek lépp gën a bëri ñu ne état waaye du mën a ñàkk it ñu ne état mhm. ndax mooy responsable képp kuy ci Sénégal wala bépp bépp bépp bor rek ci biir Sénégal uh-huh. bu ko defee lim ne xam ne am na man damay wax rek ci côté maanaam transport bi nga xam ne mu ngi am biir Sénégal c'est uh-huh. rek du transport bi waaye même ak yi nga xam ne dañuy daw normal rek waaye loolu yëpp day day day ajaat ci kaw état bi ndax man li may wax rek mooy que ne euh, Sénégal boo nekkee boo nekkee biir Sénégal mun nga bañ a comprendre lu bëri bëri parce que da nga nekk ci biir. Mhm. mais boo génnee Sénégal nekk ci yeneen yeneen réew yi nga xam ne euh, seeni permis bala nga ciy jot di nga di nga dal lu métti métti métti métti daf ciy jot. bi nga xam ne kon Sénégal dafa ni ñuy joxe seen permis yi day permettre accident yi dinañu dafa am mhm. loolu nag moo tax ñu ne maanaam lii toujours rek day delluwaat ci bi mhm. ndax ñoom ñooy responsable ñuy jox permis ndax loolu da gis koo xam ne day dawal biis mbaa camion mu nekk xale bu ndaw tey boo ko arrêté woon laaj ko ay règlement code laari lañ koy wax maanaam koo tëli bi léegi lu bëri di la ko mën expliquer léegi nag mi ngi dawal biis boo xam ne yot mhm. na lu mat soixante personnes wala cinquante personnes te xamul mhm. pourquoi circonstance yi nga xam ne mu si koo tëli bi des fois loolu day indi façon yu demee nii loolu nag bëgg naa état bi bàyyi ci xel bu baax baax baax xoolaat permis yi ñu koy jox ak tamit yu demee ni toujours boo yi nga xam ne mhm. tey boo xool seen étude bii fi mun nga pour nga gis étude yi yoo xam ne xale moo koy dawal lu góor lay doon boo ci compté doona dana koy gisaat day yàgg parce que toujours rek dañu sóoraal yu mel nii ndax tamit eh, daf ci suyee maanaam li ma tekkiwul ne doon xale day day teel nekk responsable waaye dawal dafa dafa dafa sensible surtout transport bi mel nii en tout cas ma li ma bëgg wax rek gannaaw bi ñu ko méttiloo jaar ko képp kuy Sénégal war nañu xoolaat tamit permis ni ñu koy joxee mm, merci jaayam permis bi nga xam ne mu ngi am biir Sénégal nga xam da ngay soxla permis rek dugg génn na fay ñu jox sa permis nga dem loolu dafa war a jeex loolu nag tant jeexul lii toujours day bëgg am moo xam bi nii bu gën a bu gën a oyof ñaanu ñu ko ne ñaanuñ ci wàllu Sénégal waaye pour ñu wàññeeku ci la ko suñu borom la nekk. d'accord ñu xoolaat nan la ñuy nan ndax ñun ñu nekk ci joxe sa permis bala ngay jox sa permis di nga di nga ñàkk minimum lu mat essence dafa daan xaw ma ay mille ko jox sa permis te dañ koy ñàkk rek ndax dañ koy boole jàng ñu métti. Mhm, lépp loo xam ne conséquence lu war a mën a indi ci domaine ak yeneen yi yëpp. da nga koy jàng maîtriser ko dem examen damaat examen damaat examen alors boo jot a sa permis bakkan bi sa bakkan bi nga ciy teg parce que xam nga ni nga def ba jot te xam nga li lay xaar boo defee yu mel nii. d'accord léegi moo tax ñu ne mënuñ état mënu ci génn parce que loolu responsable ci état la nekk am cent mille francs wala am deux cent mille francs ñu taxaw fay am permis loolu ci état bi nekk dañu war a jël seen responsable bu baax a baax a baax a baax. daf ay ay ay école yoo xam ne nit ñi di ci jaar di jàng ak koo mën a doon mën a doon soxla permis nga ñëw jàng daf examen xam ko si ak xam li ci yëpp ñu dog lay mën a jox permis mhm. ñu ngi ñu ngi jékku bu baax di am mbégte waaye di am naxar ci ci ci lii bu baax a baax di jéggul nag ci kàddu yi merci merci dëgg am am am naxar rek waaye doon partage ak yéen suñu xalaat bu gàtt rek. merci merci ñu merci merci di ko gërëm bu baax a baax daanaka euh, rafet nañu xalaat bi kàddu yi. kaddu yi kàddu yi rafet na itam moom itam soulevé na beneen poñ mu di euh, ñi nga xamante ne ñoo di dawal ak permis yi nga xamante ne ñoom la ñuy joxe ci euh, ci euh, ñi nga xamante ñoo di transporteurs yi man laaj bu may samp beneen laaj moo di ñi nga xamante ñoo di waa ANASER mu di agence nationale de sécurité routière ñoom ñi nga xamante ne daanaka agence bu bees la daanaka bañ ko créé sax ñaari at yi day day soog a mat waaye boobu ba léegi itam ñoom ñoo ngi xaarandi li nga xamante ne moo di seen taxawaay ci sécurisation routière bi. ndax li mel daanaka ñoom suñ fi ñu leen ciy xaar ndax ñoom daanaka est-ce que ñoo ngi fa sax ñi nga xamante ñoo di waa ANASER di agence bi nga xamante moom la ñuy créer ngir rek ñuy euh, gëstu wàllum sécurité wàllum euh, sécurité routière ndax liggéey bi nga xamante ne ñoom ñoo ngi koy ñoo ñoo koy def wala sax moom la ñu war a def ndax itam euh, ñoo ñoo ngi ci ba ba dee ji ñu mel sax war a am ñoom itam suñu leen mënee suñu leen mënee jot régie je pense que seen numéro am nañ ko su nekkee mën nañ jot ñi nga kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci agence nationale de sécurisation routière di ANASER suñu nekkee mën leen jot jot ñoom itam ñu daal di indi seen xalaat ci euh, li nga xamante ne moo fi euh, moo fi jot am ak jàngat yi nga xamante ne ñoom ñi la ñoo yor wàllum euh, sécurisation routière am nañ ko ñu rek daal di leen daal di leen daal di leen jël laataloo sax